Youssouf Diazar lay wuyoo moom mooy ndaw lu yees li nga xam ni moo toogal réewum Arabie Saoudite fii ci senegal ziyaarum bu njëkk nag mu def ko ci dëkk bu tedd bi di Touba àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril 2021 dëpp fukki fan ak juróom ci koor gi ginnaaw bu ñu ko gàttandoo ci buntub dëkk bi ak ndaw yi nga xam ni ñoom la xalif général di mourides yebaloon Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké dalal na ko ci kër Serigne tuwaa gi jàkkaarloog jumaa ji muy tànku nemmiku yoo xamante ni moom ambassadeur bi wax na dara indiwu ko lu dul feddali cofeelam ak dox diggante Touba ak Arabie Saoudite loolu itam mu firndeel ko ci ay addiye yu mu jox Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñu ràññee ci kaamil bu ràññeeku. وأنا سعيد جدا ومعاي فريق من السفارة سعادة القنصل أيوة. كما أنني أهديت هديتين الهدية الأولى مصحف أيوة. مطبوع خاص من المملكة العربية السعودية أقدم لكم إذا تفتحوا ñaareelu jéegoom moo doonoon tànku nemmiku yi mu amal ci complexe cheikh ahmadul xadim sëriñ ahmadou badawi ibnu cheikh mahamadou fadal jiite woon liggéey bi mu teg bëtam ci lenn ci liggéey yoo xamante ni daanaka balaa diir bu néew ñu mën ko jébbal sëriñ bi gannaaw loolu itam dem na ci këru xasida yi nga xamante ni daara isbu tarixi ñu ngi koy tabax foofee ci université ba ci ndigalu cheikh mahamadou muntaxa mbàkke mu romb nag ci jumaa ji ak si ko sëriñ bi dalal muy ci daara isbu tarixi jëwriñ ji sëriñ yusu jóob mi nga xamante ni moo ko teeru berndeel ko ci wàllu iftaar di ndogu loo xamante ni ràññeeku na lool jéegum yu mujj nag ci dëkk bu tedd bii di Touba mooy ziyaare bi mu amaloon ci Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Serigne Abdoul Khadr mi nga xamante ni mooy yor kàddu xalif général des Mourides foofu itam waxtaan na fa Serigne Cheikh Bassirou Mbacké jébbal ko ay addiye bég lool ci tànk yi nga xam ne def na ko fii ci Touba muy ambassadeur boo xam ne bi muy dellu mbégte la yóbbu lool te nee na rëccuwul tànk ziyaar yi mu doon amal ci dëkk bu tedd bi di Touba